ma fi rek. Modou Touré. cinq. Idi Macky mm, Ousmane Sonko ak Pire mm, ku des moom tuuti sax am na ku des koo moom xaw moo sax turu parti yi. maa fi man si yàlla tudd. moom bëri moom ah bëri moom. man waaw man damay woote mu ne. Macky Sall laa xam. ak idi mom la xam ñet yoy la xam waaw waaw son yi waaw maa ngi dëkk Medina damay voter wa election yi cinq candidat la Idrissa Seck Macky Sall euh, Sonko Madické Niang ak euh, Issa Sall xaw ma man Mori Ngom Diourbel 5 Idi Macky Sonko waaw ñooñu la xam sax Idi Idi non Idi moom xaw ma turu parti non non moom élection moom luma ma si lu ma ci intéressé moom man élection moom du ma koy sax nataa parti xam naa Idi réew mi ak Macky benn bokk yaakaar eh, Issa Sall Pire waaw ma dikkee ñaan xaw ma parti bi dama tudd Sonko tamit xaw ma parti bi dama tudd go Pastef ah Benno Yaakaar am ak gis-gis ak APR waa yooyu laa xam itam. man bu ñu nekk ma woo Macky Sall bu ñu nekk ma woo Idé ñooñu ñooñu ñooñu ñu nekk fi ñun moom moom laa xam ñu yu ko moom laa xam waaw. waaw bëgg mu ñi gañe mu jeex. non Macky non Macky moom jàpp may programme actuellement nii nii nii nii actuellement moom bu dara amul rek mu tegee ci yoon rek rek rek rek man gëm naa ne deuxième tour dina am. non deuxième tour bi moom Idé Idé ak Macky lay doon. waaw mu ñëw moom mu ñëw mu ñëw man moom peut-être kon ma dem ko am mu ne ma ñëw ma ñëw fële ma la fan nekk ma woote ko. man bu soobee yàlla Idi laay faral. Macky garaawul parce que Macky mooy suñu président tamit te tamit kon ko que moom moo ñu jiite ah moom mooy suñu président kon c'est normal ñu sol setam parce que nit amoo maanaam sa njiit amoo kenn ku ko gën a kawe quoi kon c'est normal nga dooleel ko waaye mais nag vraiment man Idi laay faral. moom laa yéene non Idi maa ko bëgg parce que man PDS pour 100 nag. gisuma Karim atan gisuma Karim wad lol mo waral may woteel Idi. sank nañ sama ngóor si baal ma woteel Idi. non non man Idi. wa man man PDS la ah, ki PDS la won mais xam nga Karim wote wut quoi motax tax. même 2007 sax Abdoulaye Wade laa wooteel. gisut noonu kon tay ji mo dem ba gis ba gis Idi. wa man na ne Idi ko na wote Idi ginnaaw ñaari man Idi non du lol sax Idi mom naka jek man mom la mom la mos a bëgg quoi non ya gëna quoi depuis 2002 ba léegi man idi laa idi laa yàgg kii daal daf sama président daal wallaahi yàgg naa bëgg mu doon président daal mais yàlla dogalu ko mais nag jangante bi moom bëgg naa suñu borom bi dafa ko ci tawféex daal. non yéen candidat noo non jàpp ma seen programme moom non non. non su may voté damay xool damay dem jël si kaat yi kaat yi may jël damay jël benn jël benn ba mat kaat mais après moo yeggee xool bu idi bi dugal ko non loolu moo ci intéressé programme bi non non non a dama ko sopp rek moo tax ma koy wo may woote. non programme bi moom xaw ma ci lu bari quoi. non man maa ngi door a man maa ngi door a voté waaw. waaw maa ngi koy dégg maa ngi koy seetaan journal. waaw ñoom ñëpp kenn ku ne wax nga sa bilan wax nga li nga bëgg waaye dama jàpp ne maanaam ñoom comme li ma la rek ñoom kenn ku ne sa intérêt rek moo la ñor mais du dara waaye ñun daal ñu ngi ñun daal ñu ngi déglu ñu ngi xool tamit kenn ku ne li la doy xam nga ko. bu jour ba nga dem rek xool kala arrangé nga votel ko waa Réfane xanaa mu defal nu pont foofu diggante Réfane ak Réewma moom dafa doon ñaar dëkk yoo xamante ni dëkk yu mag la yoo xamante ni stade dañ ñoo xajale quoi pour nga dem fa rek problème la mat 2 mais boo fa mën ngaa def une heure de temps ci yoon ak te yoon wi bari na suuf ñu defal nu foofu wala pont boo xamante ni charrette yi ak suñu booy yi jàng ah, parce que ñoon nanu jàpp ne tey jii comme booy jàng yooyu tey mën nañoo dem ba yor réew mi kon nañ ñu defal foofu yoon boo xam ne booy jàng bu ñuy dem du sori parce que am na ay école arabe am na ay école français yoo xamante ni ay maître Djib Thiaw mi yaakaar naa foofu la jógee gën a quoi ak ñeneen ñeneen ñoo xam ne ñu ngi si ginnaaw ak courant bi tam ñu gën nu koo defal suñu dëkk quoi parce que am na côté boo xam ne am na am côté boo xam ne amul waaw. neex na trop mais neex na trop daal mais ñun daal suñu diggante mooy problème bi daal suñu diggante ak Réfane daal foofu mu am même suñu yi sax bu ñu ñëw tey bu ñu jógee Ah, bu ñu jëlee daa Touba bu ñu dañuy ñëw ba Touba Toul après ñëw ñëw Néewraan wàcce door a ñëwaat Touba Toul door a ñëw ñëw jaar si réew maa waaw moo ko baare ndax foofu yoon bu neex la woon nañ defal loolu daal bu ñu defalee lool moom dina baax.